Ndofène Fall moom laa lay posé moom mooy jeunes yi nga xam ne ñi ngi wax ne Aliou Cissé mi ngi commencé di leen dugal ci biir euh, kii bi mais nag dañoo gis ay jeunes yoo xam ne peut-être seen marge de progression moom moo des ndax boo jëlee le cas de Pape Matar peut-être il joue avec euh, <laughs> n'a que son quartier tu mais lu muy joué marge de progression dafa des par rapport boo jëlee tamit Ismaïla Sarr tamit marge de progression dafa des léegi boo leen comparé ak Lamine euh, Camara bi nga xam ne dafa ñëw pour imposer boppam day mel ni ñoom tamit d'une part dafa waa xam nga euh, euh, jeunes yi. Euh, peut-être xam nga c'est pas comme de la trame de Sadio. Mm-hmm. bu mun a am élever la voix wala dans les vestiaires wala mm-hmm. Aliou teg son plan de jeu mi ne ko écoute coach nañu def nii wala ñu def nii wala ñu def nii. Mm-hmm. parce que Klopp moo doon wax ci nopp yi. du Aliou te da doon discuter. ak Klopp sur ses schémas. et boo nekkee yow yaa ngi doog a ñëw équipe nationale quand on ouvre ton compteur tu as dix sélections huit sélections et ak équipe nationale du point de vue valeur marchande lu muy booster. sa sa sa sa mun nga bañ a discuter sur des choix ba dañ lay brider te la majeure partie des jeunes ils sont bridés en équipe nationale ils n'ont ils, ils sont pas utilisés de la même sorte qu'on les utilise en club mun na différent nag mhm. parce que club euh, financièrement ils sont forts dañuy dem jëndi les profils qui qui vont ensemble ñu def assemblage bi ku nekk xam lu muy jouer bokkul ak équipe nationale peut-être mun na am loo xam ne mun na la manquer mais joueur boo buggee mu performer il faut nga ne ko yow la mu bañ am délimitation de périmètre ne ko fii ngay yem quand tu récupères le ballon lache ne cherche pas le dribble ne cherche pas à créer le surnombre yemal fii bu ko passé. parce que tamit joueur mun na am ay consignes yoo xam ne il joue par consigne. donc il dépasse pas les il faut pas ce qu'on appelle dans le jargon le dépassement de fonction. il se suffit juste de ce qu'ils font. point final kooku mënoo xam valeur am. et Dieu sait que on a des Pape Matar Sarr c'est un joueur talentueux. talentueux il joue à il joue à Tottenham titulaire. Ismaïla Sarr c'est un joueur talentueux même s'il est brouillon lu muy daanu dafa bëri loolu yëpp mën nañu ko waxal mais c'est un joueur talentueux. mais quel est le discours et quelles sont les consignes qu'ils reçoivent avant le match. loolu mun na leen ça aussi c'est une question mun na leen brider moi je je je je globalise tout. Mmh. également avec le travail de la direction technique nationale. Mhm. xam nga ñun Sénégal dañuy toog rek Aliou joueurs yi patati patata. Mhm. et le directeur technique national dans tout ça. il s'appelle Mayacine Mar. waaw qui est le patron technique de Aliou Cissé. <laughs> qui a un droit de regard techniquement et tactiquement de ce qu'on fait en équipe nationale. en principe. en principe. <laughs> si bu nekkee fees na rôle bu ñu ko jox. mais boo feesulee rôle bu ñu bu ñu la jox. yow tu te de ce que le coach te rapporte. or cette direction technique nationale là on doit la sentir. dans la marche de l'équipe nationale dans le fonctionnement de l'équipe nationale. on doit sentir cette direction technique mais on a comme l'impression c'est Aliou le sélectionneur et le directeur technique national en même temps. Mayacine il se fait tout petit il passe inaperçu. kenn bu kenn en fait à la bu ma kenn yàqal. bàyyi ma toog gérer samay privilèges <laughs> kenn wax ci man je passe inaperçu c'est pas ça le rôle de la direction technique nationale il faut qu'on la sente et malheureusement on sent pas cette direction technique nationale la dans dans la progression de l'équipe nationale parce que bu nekkoon ne mi ngi jouer pleinement son rôle je pense que moom lu doyen di wax léegi le bilan technique de l'équipe de de euh, de de l'élimination du Sénégal en Côte d'Ivoire mhm. nous j'attendais à ce que le directeur technique national fasse le bilan après la compétition. mais je me rappelle la dernière fois que Mayacine a été face à la presse. pour faire un bilan d'après CAN c'était en 2015. oh oui avec Giresse bu Giresse génnee dem il est parti il est rentré directement en France Mayacine a fait la conférence il a fait vraiment son cours magistral et tout. je me rappelle très bien je lui ai dit quelle est la part de responsabilité de la direction technique nationale dans cet échec. Mm -hmm. il était surpris C'était quoi sa réponse bah, Oui, bah, ce qu'il a dit, il a rejeté la faute à Giresse. Il ne m'associait pas dans ce qu'il faisait en ah. tant que directeur national. Ah. Je me rappelle très bien ce qu'il ah. m'avait servi comme réponse. Mmh. même dit, tu quittes ton poste. Il est arrivé au terminus lui aussi. mais nag saa ah. waay Aliou moomul équipe bi il faut que ñu wax ko dëgg. les hommes qu'il faut. à la place qu'il faut. et qu'il ait l'autorité et l'audace de faire sortir Sadio Mané mm-hmm. à heures parce que Sadio antanatul quatre-vingt-dix minutes mm-hmm. il faut que tamit mm-hmm. ñu loolu tamit ñu wax ci Cristiano Ronaldo démb il a été mis sur le banc parce que le coach sait que il a il, avec son il enchaîne trop de matchs il sait que les écossais là. c'est mhm. de c'est le kick l'impact c'est l'intensité dañuy dal sa kaw xam ne Chris Antonu da ko teg ci banc bi. Mhm. Mhm. loolu laay bëgg a wax. il est rentré avec une certaine fraîcheur il a fait la différence. ok voilà Cheikh Ahmed Tidiane Gomis euh, l'avenir de l'équipe nationale du Sénégal avec Aliou Cissé. ngir yàlla ak ba xam nga man waa nga man li ngeen di nii yëpp. yéen di ngeen gis Aliou Cissé continuer fii ak suñu équipe nationale. waaw nee na mbooloo mooy doole. mbooloo ban ban ban mbooloo tey les gens xam ne mbooloo. non c'est que non non sincèrement xoolal euh, dafa doy. man sama xalaat. man dafa doy. il doit partir parce que xam nga lu tax nañu ñëwaat. sànq def naa ne coach Tramo ko xaw ma Pape Lamine il faut que xoolal Aliou Cissé chance bi mu am ci àdduna. Mhm. gisuma fii. coach équipe nationale bu ko fi am Aliou Cissé dañ koo tabaxal benn groupe tout bi avant mu koy jël pour Londres ñu bëri dañ defe ne que Londres la équipe bi juddoo déedéet équipe bi dañ kaa togg bi ñuy nekk ay junior yàqal ko ko dañ koo defar ba mu baax mu ñëw génération bii. may ko temps avec cette génération la mm-hmm. def na quatre coupes d'Afrique jël benn man pour man mm-hmm. génération bi quatre coupes d'Afrique la waroon jël mm-hmm. dafa waroon def loo xam ne dafa waroon topp li Égypte doon def nii dominer la football africain nous on doit dominer le football africain nous avons des et lii nga xam ne gars yi ñu bëri amuñu ko moom mooy moom mooy la logistique l'accompagnement de l'État laajal kii man voyagé naa fa ak équipe kii man équipe Nigéria voyagé naa ak ñoom bokk ak ñoom avion ñuy dem vol na um Guinée équipe bu Maroc man bokk naa ak ñoom avion nii waaye Sénégal <laughs> buy dem ay ay roi ay ay avion spécial kon nag lépp mu ngi fii ñu jox ko ko kii ko. Eh, am na sànq di grand doo fi wax euh, da wax affaire bu grand micro bi ko dinaa la wax benn affaire boo xam ne moo am de. gis nga boo déggoon booy. booy yi nga xam ne il les a sacrifiés. gis nga buñ la waxoon. man man dama gëm man ba preuve du contraire. Sabaly mii. am na problème ak. ak ak Aliou mais est-ce blessure yi moom moo tax. parce que muy blessure dafa bari. ma ne man li ma dégg ci ñeneen ñi. damay bañ a wax ay tout. mais am na ci ñoo xam ne Aliou Cissé dafa ne sama bal boo duutee ci wetu camp yi. duut ci côté camp yi quoi. boo duutee sa ci wetu camp yi dootuma la ci. <laughs> del kaj ji waate kooku kaj kooku ne ko mënumaa kaj ji technique laa xam moo wutu ko. loolu laa doon jéem a expliquer Dieye sànq. si si voilà. ay consigne la booy du footballeur. au da nga ne ba sa. bul gàcce ko ci milieu a teg noonu mu ngi may dégg nag xam naa kooku mooy jour boobu mu ngi may dégg. mais Kouly Diop wax na ko fii nii coach Tratok. voilà benn émission fii c'est vrai. doo dégg la ma la wax na ko fii. <laughs> joueur bi da lay naan dañ lay naan moom nee na lii la bëgg boo ko defalul lii dootu la woo ci équipe nationale. loolu moo tax man may ñëwaat ci yow affaire Sabaly affaire Sabaly boobu. Mhm. parce que man man gëm naa ne sabali bëgg na Sénégal. Sabali mii bëgg na Sénégal. li muy def fële euh, Real Betis dégg nga di kii noonu bëgg na ko def fii kon nag moom muy dem noonu wax leen Aliou Cissé na dem. moom moo war a dem dem waxi ak moom. mais c'est nag man fi may jeexalee mooy lenn lenn kese la. yow nga ne avenir man gisuma avenir gis nga nag. il faut que nag ñu xam. mu jeex li ñu bëgg parce que dañuy dem ci beneen air. am na yeneen joueur mais xool la gos laa ñëpp ki ko mu woo ko. Michael ak. Euh, Diouf non non Diouf booy Diouf ah Diouf kii. Ah, euh, euh, le gars de Slava. waaw waaw waaw tey mu dugal ko xoolal mu boo xam ne booy bi sax demoon ne sax ba xaw a jaxasoo mooy bi muy wax ak ma kenn mu ngi non mais attends mais yow boo wooyee koy jox ko temps mooy li ñu doon wax léegi de booy loolu la ñu du ay affaire ñàkk kii de joxal jeu eh yow ay Lamine Yamal. ah ay ay ay ay ay ñooñu ñëpp mais ñooñu dañ leen jox temps de jeu dañ leen teg terrain bi ne leen acca footballal Xavi bi muy dugal Xavi bi muy dugal Kubasi. waay dakaa jël dugal ko. Euh, la preuve tey Deschamps lu kenn xalaatul ci milieu terrain bi la def indi Manu Koné. waay ah voilà. la meilleur français du match tey. ah voilà Manu Koné. Manu Koné. waaw léegi du loolu laa lay wax dama ne la. xale dañ ko <laughs> boo buggee. da nga koy jox confiance da nga koy ne nii. Ah, ana joolo fi ana joolo bi. liquidé ne ko jeex na. Seydou Sano Seydou Sano ñoom ñëpp liquidé na leen. Balde day rey joueur. day rey joueur day leen di woo pour amuser la galerie. doo dégg lu la bu déggee gars yi dina eh, kii rek rek bi daa mu ne waa xaaral ma ko waa attends. pour Cheikh Tidiane Gomis bàyyi ko mais li muy def. <laughs> Mhm. moo jaaduwul. ok ngir yàlla ak yonante ba man li may demandé rek moom mooy leen. Mhm. moom ci jëmu boppam. dafa wax a xam ne man fii laa yem pare naa tere mu dem yoonam. voilà léegi nag 14 minutes moom moo ñu dese.